di leen ci balo àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu sàmmal ñu suñu kilifa gi te yàggal ko fi muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa te yokk ko wér nu dellu siwaat rek ci waxtaan yi nga xam ne dañ koo jëmale ci amalil qulub mooy jëf yi nga xam ne xol moo koy jëf te muy yu am solo lool ndax jullit bi daa war a bàyyi xel li ay cëram di jëf bàyyi xel li xolam di jëf ndax jëfi xol moo ëpp solo ndax jëf yi muy jëf ci ay cëram lu mu baax baax la war a nekk ca xol ba bu ca nekkut jëf yooyee du am solo du am njariñ ndax suñu borom subhanahu wa taala xol lay xool kon lu mel ne dëggu lu mel ne sellal yooyu nga xam ne ci xol lay nekk nit ki da ko war a bàyyi xel jëf ji nga xam ne nag jëfi xol la te lu am solo ñu bëgg koo waxtaanee tey mooy ashukru te mooy sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne mi ngi koy defal jaamam jaam bi war ko sant ndax loola day lu am solo day wane ne kiy sant yàlla nangu na ne xéewal gi suñu boroom ak ko defal waaye da ci yëgaale ak toroxloom akuk wàcce boppam ak nangu ak njaamam te muy loo xam ne nag ñu bari dañ koy sàggane dañ koy fàtte boo amee xéewal fàtte ci suñ boroom te loolu ab jullit da ko war a moytu sant yàlla dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne dafa màgg lool ndax day wane ak suufeel sa bopp wane ak nangul suñu boroom kàttanam ak man-manam waaye day wane ak toroxlu it moo tax suñu boroom subhaanahu wa soññee ci digle ko ci barab yu baree baree bari suñu boroom mi ngi ñuy wax ne na ngeen may fàttaliku ci jaamu ma ak topp ma ma leen di fàttaliku ci sama yërmande ak sama ndimbal mu wax ne na ngeen may sant te bu leen di xéwal yi nga xam ne maa ngi leen koy defal kurkum fadkuruni adkurkum washkuru li takk takfurun suñu boroom di digal ñi gëm yàlla ñépp ne leen xéwal yi nga xam ne defal naa leen ko na ngeen koy xéwloo waaye nag na ngeen ji ngeen ci sant yàlla su fekkee ne yàlla ngeen di jaamu su fekkee ne nangu ngeen ne jaami suñ boroom ngeen xéewal yi mu leen defal na ngeen ko ci sant yaa ayuha alladina aamanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum iyaahu taabudun kon sant suñu boroom daf koo digle muy kon lu war melal yonent yu baree baree bari suñ boroom tudd na leen wax ne dañ doon sant yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa xam nañ ci moom nim mënoon a sante suñu borom subhanahu wa wax na ne yàlla dafa bëgg bu defalee xéewal ab jaamam jeexiti xéewal googee feeñ ci ab jaamam inna yu yuhibbu an yara athara nicmatihi ala abdi moo tax nag jullit bi war a xam ak cant mooy lan ndax cant dafa bari yoo xam ne dafa dafay feeñ ndax nit ki bu dee sant ab xolam am na ca wàll làmmiñam am ca wàll yeneen cëram yi it am ci wàll kon sant day nekk ci xol dekk ci làmmiñ waaye nekk ci ay jëf ni jullit bi sante ci xolam mooy mu yëg ne nangu ci xolam ne xéewal gu mën a am xéewal googee ci suñu borom la jóge ak fu mën a jaar it mu yëg ne ci suñu borom subhanahu wa taala la jóge te loola suñu borom dafa da ko wax ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp loo xam ne xéewal la gu nekk ci yéen ci suñu borom subhanahu wa taala la jóge wax ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha xéewali suñ borom yi kenn mënu koo takk ndax ku mu def doomu aadama loolu rek teraanga la joo xam ne mënoo cee sant yàlla loo xam ne mate na ko ndax ku ne bu seetee ne suñ borom mën na koo bind mënoon na koo bind mu nekk bàyyi ma mënoon na koo bind mu nekk jamaat doj wala dara waaye mu def la doomu aadama wax ne damaa teral doomu aadama loola rek doy nag cant nga boole ci mu jox la ay cër jox la am xel ba nga mën a dund ci àdduna bi ba noppi mu wëlbatikut wax ne dama laa tàggatal li ci diggante asamaan ak suuf lépp mu tàggatal ko tàggatal ko doomu aadama comme bu la defee doomu aadama loola rek mënoo caa sant suñu borom subhanahu wa taala lu ko fay kon yëg gi doomu aadama di yëg loolu ak cant la nangu gi mu koy nangu ak cant la waaye loola ci xol lay nekk waaye cantuk xol rekk dayut jullit bi bu yégee ne suñu boroom defal na ko xéewal yu bari mu di ko ca sant da koy jëfe day nekk ci loo xam ne day gërëmloo suñ boroom subhaanahu wa taala day topp ay ndigalam di moytu ay tereem lépp loo xam ne ak tooñ la mu ko xam ne ak cant dañ koy jëfe dangay nangoo jaamu yàlla dangay nangoo moytu ay tereem loole moo di sant waaye wax ko rek duyut moo tax sant nekk na loo xam ne yombut lool moo tax suñ borom di wax ne ñu baree bari ci samay jaam duñu sant wa qalilum min ibadiya shakur ñi sant dëgg ñu néew lañ ginnaaw cantu xol ak cantu jëfe waaye nit ki dafa war di wax waxtaane xéewal yi ko suñ boroom defal ngir sante ko ko ngir wane ko ndax suñu boroom subhaanahu wa taala dafa wax ne wa ma wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis li nga xam ne suñu boroom moo la ko defal ci ay xéewal nanga koy wax waaye delloo ko ci suñu boroom subhaanahu wa taala ku ne xam na ne nag bokk na ci jamono yi xéewal yoo xam ne Sénégal yépp ku fi dëkk war nga ko yëg muy xéewal yu ñu suñu boroom subhaanahu wa taala defal muy jàmm ji nga xam ne def na ko ci réew mi ndax jamono yii di weesu képp ñu baree bari tiitoon nañ jaaxle woon nañ jàpp ne fitna dana fi am waaye suñu boroom dugal ci loxoom ba indi fi jàmm ba lépp luñ doon tiit ak ñuy ragal ko gisuñu ci dara loola xéewal la gu rëy rëy koo xam ne dañ cee war a gis suñu boroom dañ cee war a dellu ci suñu boroom dañ cee war a xam gën a xam kàttanam ak man-manam ak ne coobaram rek lay jëfe kon loolu xéewal la goo xam ne ñépp war nañ koo war nañ koo yëg war ko cee sant nuñ ko ciy sant nag bokk na ca jéem a góorlu jéem a jëf jéem a gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a seetal xol yi sellal xol yi li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ko digal muy jëf loola ñu def ko ndax kat suñu borom ba muy wax ala daawud ngir ñu sant ko dana imalu ala daawuda shukran na ngeen jëf ngir sante ma ko ba muy wax waa Quraysh xéewal ya nga xam ne daleen koo defal muy defal leen jàmm defal leen dal bañ mën a dem ci seen liggéey ba dem ci seeni tukki yañ baaxoo def dafa wax ne falyaabudu rabba hadha al bayt alladi at'amahum min ju'in wa aamanahum min xaw kon nañ jaamu yàlla mi boroom néeg bi nga xam ne moo leen jox xéewal yu day sëkk yoo xam ne jaaxleetuñu ab xiif waaye moo leen defal kuulute moo leen defal kaaraange moo leen defal sécurité kon daf leen digal ñu jaamu ko kon li ngay faye suñu boroom subhanahu wa taala ci bu la defalee xéewal mooy jaamu ko kon ñun bokk na ci li ñu war a sant yàlla mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóor yi setal selal setal xol yi mahsulun أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسل لا إله إلا السلام kon bokk na ci ni ñu war a sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal gi nga xam ne am nañ ko mooy lépp ñu delloo ko ci moom xam ne ci coobareem ci lañu ko defale waaye nag sant it ñi nga xam ne am nañ ci taxawaay boo xam ne tax na ñu am jàmm ji ñu am te Cheikh Mouhamadou taxaab ràññiku ci lool ñu di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam bokk na ci li ñu may jàmm taxawaay yu am solo yi nga xam ne taxaw na ko ci réew mi kon nag war nañ cee sant yàlla sant ko ci ñaanal ko ak ñëpp ñoo xam ne taxaw nañ ba ñu am jàmm ñi nga xam ne suñ boroom jiital na leen nañuy sante suñu boroom mooy jubal def li leen suñu boroom digal ci àtte ci maandute lépp loo xam ne digge nañ ko ñu fas yéene matal ko waaye ñi nga xam ne ñoom la ñuy àtte it mooy seen warugar mooy ñu sant yàlla ci góor góorlu ci nangoo liggéey ci farlu te moytu lépp loo xam ne ak yàq la ñu góor góorgóorlu ci loolu buñ ko defee li suñu boroom diggee ci cant danañu ko defal mooy danañu dolli ay xéewal ñëpp ànd joxante loxo jàppalente ci loo xam ne day jëmale réew mi kanam sant dafa am solo lool ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa bokk ci jeexit yi nga xam ne wax na ne ku sant danga ko ca amee mooy dolleeku mooy xéewal ya ngay sant suñu borom yëg ne moo la ko defal faw day day dolleeku la in shakartum la azidannakum loolu suñu borom moo ko wax bu ngeen santee danaa leen dolli waaye bu doon rek ngërëmul yàlla li ngay jële ci cant jar na ko ndax lépp lu ab jaam di wut ngërëmul suñ borom moo ca jiitu ca moo waxoon ne wa in tashkuru yardahu lakum bu ngeen sante suñu boroom dina gërëm cant googee ngeen ko gërëm ngeen ko ca sant kon sant yàlla it payuk suñu borom da cee nekk ndax yàlla moo wax ne wa sa yajzi llahu shakirin sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu digle nanu digal nanu ba tàyyi nu dëkke di tuub ak di sant suñ borom subhaanahu wa waxoon na ne xéewal saa bu ñu ko santee mu sax dàkk waaye saa buñ ko weddee mu daw an ni'matu in shukirat qarrat wa in kufirat farrat waxoon na ne it loo yor lum bare bari boo ca sante suñu boroom suñu boroom bàyyi ko ak yow waaye lum néew néew boo ca gisee keneen ku dul suñu boroom ne suñu boroom jële ko ci yow man chakara allaha taala ma maahu tarakahu lahu wa in kathura wa in ra'a fihi gayrahu taala agadahu wa in qalla kon ñu góorgóorlu sant yàlla ñaan suñu boroom xéewal yi nga xam ne defal nañu ko mu dolli ko yokkal ñu jàmm ca def jàmm ci réew yi jullit yépp bépp barab boo xam ne ay jullit ña nga fay ami coono yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala teggi li nga xam ne mooy xutba bi nga xam ne nag moom la imaam war a xutba tey ginnaaw bi mu santee yàlla julli ci yonent bi sedd ne amul benn buur bu dul suñu borom subhaanahu wa sedd seede ne muhammad mooy ab jaamam mooy ab yonentaam dafa wax ne yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ragal yàlla ki texe mooy ki nga xam ne ragal na yàlla maa ngi leen di moytandikuloo mooy yàlla ndax ki mooy kilifaam mooy boroomam kooku mooy ki perte mu ne na ngeen taqoog topp suñu boroom subhanahu wa la ndax ci topp ko ci la ngërëmam nekk maa ngi leen di tere ngeen topp seen bànneex ndax topp bànneex ci réer rekk lay jëme nit ki maa ngi leen di digal ngeen gaawe tuub balaa digg bee ñëw na ngeen xam ne képp ku fàttaliku yàlla suñu boroom fàttaliku ko mooy képp ku topp yàlla suñu boroom defal ko ngërëm defal ko yërmande wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah na ngeen moytu jamono jamono ji nga xam ne jamono la ju joo xam ne aw yiwam dafa néew te ay balaam bari jamono la joo xam ne kenn ku nekk yaa ngi yittewoo sa mbirum àdduna ñu baree bari ñu sàggan ñu baree bari sàggane faatu diine mujj tumuranke na mu tàmbalee woon ñuy ñëpp ku nekk war a mettitlu war a bàyyi xel bis bi nga xam ne ci la suñu boroom di wuññi yu nëbbu woon bis bi nga xam ne ci la ci suñuy cër di seede lépp loo xam ne mos nañ koo def te bis boobu suñu boroom subhaanahu wa taala moom rekk mooy àtte yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma idin lillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñeent yi dafa bokk ci texee di mooy bët bu bët bu wow mooy bët bu dul jooy ak xol bu wow waaye ak xir guddal say mébét yonent bi sallallahu waxaat na ne it yàlla day tàllal loxoom guddi ngir képp koo xam ne defoon na aw ñaaw ay ñaawteef ci bëccëg bi mën a tuub waaye bu guddee mu tàllal loxoom ngir képp koo xam ne bu bëccëgee mu tàllal loxoom ngir képp koo xam ne defoon na ñaawteef ci guddi gi ba ba jant bi soo mu mën ko koo jéggal ci xutbam ñaareel bi mu wax ci ne yéen nit ñi ana sàggante gu metti gi nga xam ne yéen a ngi ci sax dàkk yéen a ngi déglu waaraate yi ajjuma ju jot te yéen a ngi koy wan ginnaaw ndax dangeen a jàpp ne da ngeen di béel ci àdduna ji wala dangeen a yaakaar ne du ngeen faatu ñu dekkal leen te loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel kenn ku nekk war naa laajte ana yonent yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ana waliyu yi ana xeet yi ñu jiitu woon ana suñu maam yi nga xam ne ñoo jiitu woon ne na ñoo ñépp ñu ngi ci biir suuf kullu naf kullu nafsin daa'iqatul mawt wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turjaun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne na ngeen baril di wax laa ilaha illa allah balaa bala ngeen a dem ba ñu dox seen digganteeg wax ko dootu leen ko mënati te laa ilaha illallah mooy kàddug seede googu nangeen koy sax ñi nga xam ne dañuy dañuy jub faatu nekk ci sukuraat yonent bi sallallahu alayhi waxaat na ne ki gën ci yéen mooy koo xam ne ak dundam dafa gudd te ay jëfam rafet waaye ki yées ci yéen mooy koo xam ne ak dundam dafa gudd dafa gudd fan lool ci ay jëfam ñaaw yàlla ci yàlla musal yàlla suñu borom subhanahu wa taala boole jéggal salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaam hayya ala salaam على الفلاح الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه قسم الأرزاق والآجال بين عباده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 واستغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين كما وصار الدين غريبا كما كان مبتدأ فوها أسفا وها قلة حيلتا في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من الشقاوة جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفيه أيضاً inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuuba musii'u nahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u llayli hattaa tatlu'a ash-shamsu min maghribihaa الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون allahuma fasalli wasallim alayhi waala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daaimayni mutalaazimayni ilaa yawmi yub'asuun amma ba'du fa yaa ayyuha nnaas maa haadihi alxaflatu allati antum alayha aakifuun tasmacuuna almawaahiba kulla jumcatin wa antum canha mucriduun atadunnuuna annakum fi ddunyaa muxalladuun am tatawahhamuuna annakum laa tamuutuuna walaa tubcasuun ayna alambiyaau ayna alawliyaau ayna almursaluun أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم man taala umruhu wa saa amaluhu yaxfirullahu lana wa lakum wa li jamiil muslimiin amiin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 allahu akbar sami allah habbana wala allah Allah oh.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 تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفروضة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله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 asalaamaaleykum. asalaam.